wa ala xudwatina al azim maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridin barkeb Cheikh Abdul Karim ñi sant yàlla bu baax ko joyal moom sunu borom mbooleem xeeti cant yi ngir moo ko yeyoo di julli ci Muhammad sangub sang yi waaye noo ngi feddliwaat sunu kóolute fi si Amadou Bamba ñu ngi balu xàq bokk yépp di leen baal tey ñaan yàlla boole nu jéggal ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla san borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ñu koy ñaanal mbooleem kuy sol sa dàll te lislaam tax laa jóg ñu ngi nuyu mbooloo mi di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sunu sang bu baax bi nga xam ni moomu nu kulóoral sunu jotaay bi di sëriñ xaadimul basiir moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Seyxanaa Ahmadul Xadim sëriñ bi ñoo ngi lay ziyaara di fedd li sunu taalube ci sa jëmm di la ñaanal yàlla mu guddal sa fan te wéral la nga mbooleem yéene yi ci sa yoonu maam wi yàlla kàttanal la bëgg a jëf te ànd ko dongo yi la sëñ bi booleel ci barke Seexul Xaddim barke Seex Abdulaat barke sa wayjur baax ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax yaram ñoo ngi nuyu waa gox bi yépp di nuyu waa daayira bi nga xam ni ñooy taxaw bis bii ñu teg nuyoo bi ci loxol Baay Xabaan ñan mu baax mi nga xam ni boo déggee turam rek xam ni ab murit la ndax xabaan moo gis sëñ Modou xaban lañ ko tuddee sëñ Modou xaban sëñ ma ndumbe ma ko meññi mooy murit bu mag ba ñoo ngi ñaanal sëñ Abdou Mbàkke yàlla yàggal taxawaay yàlla yàlla yàlla dolli ay leeram te taas ci barkeem ci barke Seexal Xadiim moo daa toog fii wetti li ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ci barke guddi gi ak daraja yi guddi yi am yàlla na borom yokk ay darajaam foofa ndax guddi gi guddi gënu koo màgg te moom daana ko ànd ak ñun fii di ko dundal ci barke guddi gi ak xër gi nu ci amoon mook sunu bàyyi sëriñ xudar silla lépp lu nu fi liggéeyal yàlla na ko yàlla nangu waaye na leen fekk fa nu nekk ci barke boroom guddi gi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziyaara njabootuk bàyyi xudar silla yépp mën nañu ci jiital sëriñ Cheikh Bamba Sill mu baax mi waaye ak sëriñ xaadim silla waaye ak sëriñ xudar siise maa ngi koy wax sëñ xaadim léegi nañ ko sëñ xudar fu mu toll moo ngi ñuy nemmiku te nuy ñaanal moom ci xasida rekk lañ ko xam te xasida ñaan gu nangu ba noppi la moo tax ku ne ci xasida yi bu lay wax maa ngi lay ñaanal santal yàlla ndax xasida ñaan gu nangu ba noppi la xasida gu sax ci lam làmmiñu nit comme ismu laayil azam bu nit wird ba mu nangu hmm, bu lay ñaanal rek yàlla di ko def ñoo ngi ziyaara sëñ Cheikh Mbakke bu baax mii kat gisuñu ko woon sëriñ Cheikh Mbakke moom sëriñ mustafaa Imam moom sëriñ Abdul Xafuur moom Mamor Jaara borom saam sëñ Cheikh ñoo ngi lay ziyaara bu baax Mbàkke yaram ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay te wéral la Mbàkke bal la moom it liggéey yaa konu borom Touba la ci biir réew mii ak bitim réew foo ko fekk rek liggéeyal sëñ Touba ko ñor moom mii la sëñ Modou Kara nooree ni jox ab taawam soxna Umu Xayri kon loolu nga bokk ak sëñ xaadim yow ndeke moom bàjjanam mooy way juru sëñ xaadimul basiir doomi sëñ abdul xafuur bu moom mu Maamor Jaara waaw loolu moom jotuñu ko ci woon xam sëñ seex yàlla na yàlla yàggal taxawaay kon nag yow sëñ xaadim ñaari cër nga am ci borom Touba waaw ndax maam borom saam moom sëñ tubaab moo ko fonkaloon boppam daana waxit ni moom maam borom saam ma dara la am déet waaye maa ngi ci diggante ñaari dara soxna jaara dara la Cheikh Ahmadou Bamba dara la te maa ne ci seen diggante doy na sëkk waa àdduna maam borom saam sëñ Tuubaa la kenn xamul lu mu doon waaye sëñ Moor moom soxna jaara Buso ñu gën a miin tur ci Mamor Jaara doy na waa àdduna sëkk lépp kon sëñ bi wet googóot ñoo ngi la ci fedd li sunu taalibe ndax sa mbokk sëriñ Xaadim Mbakke moom sëriñ Baara Xurey ja mu maam borom saam mooma dalal baa siin miim kër maam borom saam dama fa am beneen cër ndax lii nii ma nekk yaakaar naa ni bu fekkoon kama dalal alxur alxuraan loxoom ba barkeelul xanaa duma ne ci lii ma ne te surtout maam borom sama moo dalal alxuraan doomi sëñ Bara Xuréja kon ñoo ngi fedd li taalu bëgg bu baax di nuyu bokk yi doon kuréel xasida yi wallahi maa ngi koy wax sëñ xaadim maa ngi ko ni bu may ñëw ci yenn waxtu yi ñuy bàyyi ba ma noppi ñuy yeggale day diis ci man gan xam naa ni lu woyof ci ñoom toyu la nag li ma xam ni lu woyof ci ñoom toyu la mooy xam naa seenu fulaak seen farlu ci xasida yi farlu goo xam ni def gu simple lan ko def ndax am na ñu mu doon doon kenn munta tee ñu yeggale xasida gi loolu xam naa ko xam gu wér waaye xam gu nu xam ni man ak ñoom ñoo bokk lii ba noppi dara génn ci sëñ bi rekk moo tax ñuy def lii waaye day diis gan ci man nag barki Cheikh Amadou Bamba du muy diis ci man it noonu laa xam ne noonu la woyofe ci yéen waaye sëñ bi rek moo toll noonu waxtaane sëñ bi mooy xasida yi xasida yi mooy waxtaane sëñ bi te guddi gi day guddi goo xam ni buñ ci teewee lu mu gàtt-gàtt donte benn nit la war na nañoo ubbi boppam bu ñu ñëwee ci mbooloo donte benn nit la war na noo ubbi boppam ci guddi gi ak njariñ li waaye guddi gi ak njariñ li it ubbi ci bopp nit ñun duñ ci romb borom Tuuba waaw ci moom la ñu yem ci sëñ bi la ñuy yem ku ci boppam war a ubbiku ci sëñ bi lay ubbikoo li muy ubbikoo ci sëñ bi mooy li sëñ bi wax ci guddi gi ak li mu wax ci borom guddi gi ñun ci lañuy ñuy yem yépp am solo mooy bu gis ngeen ni ci sëñ Tuubaa warmaale sayyiduna Muhammad tuddul turam tuddul turu saaba yi pourtant woo a ci saaba yi de ñaanal leen li mu leen war a ñaanal li muy ñaanal saaba yi saa bu leen tuddee ci xasida yi tudd na saaba yi ci moyen bu ñaanal leen waaye tuddul seen tur yi da leen a abrégé alal atiqi seydna aboubacar génn mu ne alal waziri seydna omar génn alal diyaa Ousmane Ibnu Affan génn alal xaribi Sidna Ali génn parce que tuddul tur ci xasida gi tuddul turu njool màkka noonu mu def njool màkka noonu la def saxaaba yi ci biir xasida gi gis nga bi mu leen tuddee ñoom ñeent ba noppi da ca boole cent 124 milliers jébbalu woon ci rasulullah yépp ci benn baat mooy ala saxaaba zawil ijaaba ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla nangul yowmal kaaba bu nu dajee ca bis ba yàlla na nu am rida sanaa yi ngërëmul seen borom parce que radiyallahu anhu ñoom nga ko ñemee wax moo tax rida sanaa yi mooy tëj loola xitaabu zabyin bil kalaam zabyun yu kallim kalaamu dabbin qad ataa dabbun yusallim inha tawassulu tuyur tayrun yuazim sëñ Tuubaa moo mën a melal sayyiduna Muhammad parce que moom moo xam nan la yonent bi toll damay wax sumay waxtaan yu bari nii njool njool màkk sëñ Tuubaa rekk xam valeur sëñ Tuubaa moo xam valeuru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi gi li ni ci borom Tuubaa wax doy na sëkk walis ñuy jàll ci leneen sëñ Tuubaa nee na jàng nii sax ndox mi ñu tiimoon di jàng sëñ Tuubaa nee ku ci naan yàlla dina faj sa dënn faj sa dënn nag moom mooy xol bu mucc ayib ngay am te ku xam ku am xol bu mucc ayib boo dajeek yàlla dangay tàbbi àjjana yàlla moo wax yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man atallaha bi xalbin salimin xalbun salim mooy xol bu mucc ay sëñ tubaa nee na ndox mi day faj dënn faj dënn nag lim ci jublu mooy xol bu mucc ayib sa xol mooy mucc ay léegi nag ku sa xol mucc ay boo dajee yàlla am ndam parce que yàlla nee na alal du fi jariñ doom du fi jariñ waaye xol mucc ay du fi jariñ ihya umawidil basir yahmin ayaala nee na guddi gi màggal ko Sëñ Tuubaa nee na day tax yàlla aar sa njaboot xanaa kenn ku ne bëgg na njaboot sa njaboot aaru sëñ Tuubaa ne ne màggal guddi gi day tax yàlla aar sa njaboot yax mi la ayala du yam ci aar sa njaboot wa duyuur day aaraale say kër fii sifaa'un li suduur ci la fajug dënn nekk li kulli ajijin tamit yunawwirul xalbu saraab day leeral xalbu saraab xolub aji naan ji min zalikal ci ndox mi bi mu jàpp bu mu tax nag nu xëccoo ko waaw sëñ Tuubaa ko wax de sëñ Tuubaa nee na ndox mi ku ci naan sa xol dina leer te ku sa xol leer mooy xol bu mucc ay ku sa xol mucc ay boo dee dem àjjana parce que yàlla nee na ku yegg si waale xol bu mucc ay bi rek at may examen bi daal xaalis jàllu fi doom jàllu fi mais ku yegg si waale xol bu mucc ayib at me suñ tubaa ne yu xal bu sara min zalikal ma ci mii ndox bi mu jàpp ci saas yi nag la ko yàlla def nee na bi mu jàpp yàlla day daal di tontu léegi wal xal ba yux yi xol ba dana dund duna ab xol bu dund nag mooy xol buy dund bànneex ci boromam xol boo xam ne bu gisee lu baax day kontaan bu gisee lu bon mer xol boobu mooy dund xol bii dund day bëgg lu baax bañ lu bon ab xol bu demee ba buñ tàmbalee waare mu daw bu safaan amee mu teew xol ba dee na kooku dund xol xolam dundatul te jamono day këf nit ñi léegi ba ñu toll ci bu nit di waare ñoom jóge fa la ñuy bëgg suñuy waare rek dañuy bëgg a dem fu caaxaanee nekk fa lañ jëm ku mel noonu na fexe ba naan ci ndox mi ndax wal xal ba yox yi duna aar nit am nañu ko mel garaawul boo waaxoo ñëw mel ni Saliou Samb bu doon man la nag man damay waaxu ñëw naan waaye yow boo ruseet fexeel ba sa xarit bu nekk ci kuréel gi ñoom duudoog ñooñu burtu bi liy wàccaale ñu may la nga mos rek yàqu ci dara bi loo xam ni boo ko melee dem àjjana mel ko baax na di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne anna fil jasadi mudga ida saluha saluhal jasadu kullu wa isa fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb yonent bi nee biir jëmm doomu aadama ne na mudd xaan ci benn dog boo xam ne bu baaxee jëmm jëpp baax na su safaanoo jëmm jëpp safaanu na yonent bi ni dog boobu mooy xol waa léegi yow ndem xol bu baaxee sa jëmm yëpp baax borom tubaab mi ay waxam dul dañ ni la lii boo ko naanee saxol baax fexee la naan rek daal di baax baax moom kenn bañu ko ñëpp a bëgg a baax ñu yàlla nattu ñuy def safaan di fanaan ci baar yi sax dañoo bëgg a baax bëgguñ kenn gën leen waaw te day tax a baax waaye li ndox moomu mën nag ci dara jëy guddi gi la guddi gi moo toll noonu Sëñ Tuubaa dañoo waxoon ne bi xam najaatu wal falaax maa surur wal najaax bihaa rabaahu wassalaax maa indifaayi niqami Sëñ Tuubaa nee na guddi gi ci lañu atmee bihaa najaat wal falaax ci lañu jële suñ texe gi mbég mi ci lañ ko jële ci lañu rawee bihaa rabaahu tonowu gi bénéfice bi ci lañ ko jële wassalaax ci la suñuy mbir yéwénee ci guddi gi rek veille bi maa indifaayi niqami ci la ñu yàlla dàqal lépp lu ñu ragaloon mooy guddik dimaas jëm fajarik altine sëñ tubaab guddi gi lañu wax ba noppi door a ñëw ak ñun ci juddu bi mu waxee salli wa sallim sarmada alallazi xaturida bi laylatin xad wulida fiha mudimun laylatu mawlidin nabi laylatu maxwi riya bi guddi ga nu far laylatu maxwi lay yoon guddi gi nga xam ne ci la yonent bi judd muy suñ guddi gi laylatu maxwi riya bi way sikk ya ci lañ leen fare tumax laylatu maxwi bi coono bu amul njariñ ci guddi googu la jeex ku sonnati da ngaa war a jariñu sëñ Tuubaa nee na wa tuhuri ñu laabal zita azumi borom bakkaar yu mag yi ci guddi googu lañ leen laabale seen najaatu wal xawat xawaari xam badat suñ tubaab nee na guddi gi am na ay xarbaax yu ci feeñ bi njool màkka waree feeñ am na ay xarbaax yu feeñ sax na ni am na ay xarbaax xawat xawaari xam badat ani ruwaatin borom riwaaya ya sabatat saxal nanu ni guddi gi am nay xarbaax mel ni suñ tubaab leen ñu ko yan xarbaax a ci am mu ni ka misli naarin at fiat mel ni sawara sawa pers ta perse ya doon jaamu Iran fii tudd Iran tey sawara lan doon jaamu jaamu nañ ko mille ans mësta fay dimanche ci guddi jëm fajari altine daa fay junniy at milan ans sawara si mësta fay benn bis amul benn bis bu sawara si mësta fay benn minute mille ans jaamu nañ ko lu toll ni junniy at fukki siècle sawara si mësta fay waaye keroog guddi dimaas jëm fajari altine njoor makka war a ñëw ci adduna bi sawara sa daa fay ka misli naa leen fi at ma am li xaa i daqami xam nga loolu kiimaan la lu dund junniy at fayul bu xëyee fay sawara su takk junni at fayul bu fayee ci genn guddi war noo xam ne am na lu war a xew ci guddi gi daal di wax ni waa ayna saawat allati xad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suy rekk al adami sëñ Touba nee na bëtu ndox ba nga xam ni ka tudd saawata moo jiite woon ña ko doon jaamu bëtu ndox ba am na junniy at di bal foofa waaye keroog ci guddi gi dafa fer ba suyu seen dex yag fer na keroog Baye Moussa Ka nee ca barsan ba seen taal ya fay na kamaj seen dex ya fer na keroog bëtu ndox ba seen taal fay na kamaj seen sawara te mës la fay alfa amin booba yàlla junni at mës la fay wakan xidaadi sahu bi tardan li ahli riya yi an sami axbaari nabi war a yow bi na demi nee na seytaane yi daa yéeg ci asamaan si di fekkee réunion ya di xam dogal yi xew ñu koy wax njabarkat yi njabar yi di ko wax nit ñi bu xewee ñu naan di wa bari xam-xam keroog dañu leen a dàq ñoom mënuñoo seetaan mënuñoo fekkee réunion ba keroog waruñoo xam li xew wa rajahu ñu wàccaat ci suuf si nag bi na demee di lu leen dàq sëñ Bamba mu ne ay biddéew ay fàq di leen dab di leen jam turida fiiha bi nujum anis samawaati rajim di leen jam di jóge ci asamaan si di leen jam ñoom seytaan wax far ñuy daw xaasiran li ay way perte seen mbooloo ma bihis bihi daawaka mi daal di wax feq na xiina wulida instant bi mu gënee jamono Sëñ Tuubaa nee feq na ñu ne ko lu feq mu ne xaar leen ma wax leen ki gane jamono ba noppi xayru nabiyin ki gën ci yonent yi xat badaa sax na ni moo gën salla alayhi man hada yal na xéewalug ki nga xam ni moo jubal moo feesal nekk ci moom foi duhu ki feesal dënam bi bil xikam yi ci xam-xamu xikam lu feq nag léegi kaay leen ma wax leen ko nuurun azimun xad yara bihi xusuura xaysara leer gu mag guy tax a gis paleb xaysar bi kan mooy gis paleb xaysar bi sëñ Bamba mu ni man kaana ki nekk fi umil xuraa ci ndayu réew yu ndaw yi ci sibhu jaziratul arab presqu'île arab am na nday yu ndaw ya fa nekk am na fu ñu tudde ndayu réew yu ndaw yi fuy foofu sëñ Bamba mu ni màkkata a xurum yi diwaanu kisraan sadaa pale kisra ba keroog day fett di yënguy daanu fii hawa xablu rufia avant avant loolu nag R plus 4 la woon sam kun lahu fartafan nax wa samal mukarim bi daal guddoon nag ci ñoom ba xalaat ne lii day laal nuage yi ci jamono boobu seen R plus 4 booba xam naa bokkul ak suñu R plus 4 yi ñoom nag bokkuñu woon ak ñun booba ku am R plus 4 sax daanaka amul ci àdduna bi waaye Kisra moom amoon na R plus 4 bu nu yaakaar ne day laal nuage waaw wa qablu rufian samkun lahu fartafaa nahwa samal mukarrimi waaye nag keroog day toj balal yay damm xataa sarirun kasara balal ya di damm aj li xëw li neex lu ko damm sëñ Bàmba mu ni leer njool màkk bi min nuuri afdalil wara ci leeru sayyidina muhammad gi rabbi sama borom alayhi sallimi yàlla na sëlmal ci moom ba'da salaatin gannaaw bu jullee ci moom laa tasul julli gudul dog bil ali ci ñuñum boppam mbokkam yi wa sahbil udul ak saabaam yu maanu yi wa biya ci man ahmadu mbakke mi toog di way xasida gi nag jaddidi sabil ci la yàlla yeesal al islam bi laa idan moo yeesal l'islam bi sëñ tubaa sëñ bi am na loo xam ne jarul sax ak ay ay coono yéen ñëpp xam ngeen ni waaye Moussa Ka ba muy mu muqaddimaatu olof olofam ba te waxoon ko ni la yoneen ba ruujoon góor ña booyal ko yaa ko bay bu lislaam defoon ab tool ñu jëwriñ ko waa Touba sëñ Muntaxa firi na ko barke Seexul Xaddim ñépp ñépp lañu tere julli ñu bàyyi sëñ Muntaxa julli waaw kay dëgg la la yeneen ba ruujoon yeneen bi li ko fi indi li ci gën a for julli la am de la yeneen ba ruujoon góor ña booyal ko maanaam la yeneen ba ruujoon ñu war koo bay ñoom booyal ko yaa ko bay bu lislaam defoon ab tool ñu jëwriñ ko waa Touba loola Baye Moussa Ka borom Touba la ko waxoon waaye sëñ mu taxaa ko firi bi nga xamee ni ponk lislaam juróom la te deux ans def nañ ko ñeent ñaari at a ngi ñu def ponk lislaam ñeent kenn ajul waaw wax naa ko barki démb si télé bi moo indi polémique yàggul dara ci koor gi ma ne leen Touba ak Iran rek ay julli daaw daaw daaw jéeg ba ren kon bu lislaam defoon ab tool ñu jëw jëwriñ ko waa Touba dëgg du romb bi nopp bu ne wa biya jaddidi sabil maa yeesal lislaam ci man la yàlla yeesale lislaam ñu dem ba lii ñëw lii xew ci réew mi xew ñépp bàyyi julli màkk sax bàyyi fa lislaam bi wàccoon bàyyi sëñ mun ni fii moom mënuñoo ñàkk a julli ah moo tax ñu yara di ko ñi nekk fii di wax ñii biñ leen tëj loo jàkka yi dañoo tëj di tey ñu bëgg dugg ci pas-pasu murid yi ñoom bu xare Badar amoon duñ dem barke Seexul Xaddi ñii di dingat yoonu murid naan ay pas-pasu bokkaale ak pas-pasu nangam barke Seexul Xaddi bu xare Badar amoon duñ dem te yàlla nag bala nga mat sëkk mu jaral la sa bakkan bi balaa ngaa matum jullit yàlla ak yonent bi dañ lay gënal sa bopp waaw waaye durul naas yi képp kuy noyyi di roog aadama nuñ la bindee bu ñëpp àndoon ñi mel noonu ni dañuy yàqal sëñ Tuubaa mënuñ koo yàqal tarfatal ay nii nee na wakkafa nii durul naas moo tax murid nan ndox ndànk rek faaw ñuy wax ak yéen nag faaw ñuy wax ak yéen de yéen rek a fi des ci communauté buy dox kon faaw ngeen di dégg faaw ngeen di dégg de waaw yaatu leen yaatu muñ nag waaye di ngeen dégg de ah waa sëñ bi ngeen baal ma ci wax ñu xam naa dina reelu waaye kuy bañ ni yàlla def sëñ Touba mu Mountakha woote journée xasida bi nga gis tàncaloo bi ci biir corona bi mu lay bëgg a yi nga gis embouteillage 12 heures de temps ci màggal gi ndax doo wax waaye dangay ngay tépp waay nga wax day affaire fu muy yegg faaw nga kalaate ah waaw faaw nga kalaate gars yi dañoo kalaate de dañoo kalaate affaire bi bi journée bi rek problème la woon si ñoom raj-rajloo bi ci biir corona bi yow ngay bañ Sëñ Tuubaa yokku nga gis journée xasida bi ni mu mel mu lay bëgg a metti yàggul dara nga gis embouteillage douze heures de temps ah douze heures de temps boo xam ni raj-raj loola moom ah oto yi daaw jéeg ak daawaati jéeg yi ñu métti diggante daaw rek ren yi fekkee guloon nag màggal gi yëpp ñu bëgg a dugg ci ruq bi ah waaye bi sëñ bi Lahad Mbàkke nag booy juru kii toog dafa am lu mu waxoon am na léegi seen internet bu ma questionné di ma wax loolu lan ngay wax pour apaiser pour wut jàmm ma ni ko man waxi sëñ Abdou Lahad Diarra foofu laa ne koo xam ne ni yàlla def borom tubaa neex na la yaa gënal sama bopp koo xam ne ni yàlla def borom tubaa neexu la awma lu may wax ak yow awma lu ma ciy wax barke Seexul Xadim foofu laa ci yem ñooñu lan laa leen di wax léegi eh, li yàlla def borom tubaa bu la neexul yow ñun lan lan war a seeq ak yow Cheikh la jàngal na murid yëpp fu ñu war a nekk di fu nit mën a ne te ni yàlla def borom tubaa neex ko ko def ni suñu bopp waaye koo mën a yàlla def borom Tuubaa neexu la nanu la bàyyi ñun suñu yoon ci yow yow problème bi nga am mooy boo yeggee yàlla dal naan maa defoon nii Ahmadou Bamba lu tax moo naqari la ci laa lay duma yàlla bu ko neexee li ko neex xam nga sëñ Tuubaa boo gisee mu daan jàngal mag ñi ni lu neex yàlla na leen neex mooy yàlla boo ko contraire soo ko opposé boo ñëwee da lay duma ndax lu tax ma def nangam ba noppi nga ne du fi amee parce que lu ndaw fi mu toll nit ñi dañ koy def opposé yàlla la diw man lay wax nangam tay ma toroxal ko yàlla ni wala xadd karam naa ba ni aadam nga ni tay ma toroxal ko yow est-ce xam nga opposé yàlla la loolu képp koo gis mu jóg jël intention wu toroxal benn doomu aadama na nga xam ni mu ngi opposé boromam parce que boromam wala xadd karam naa ba ni adama la wax moom bi mu teralee doomu aadama moom yàlla ba noppi képp ku jóg ni tey ma toroxal nit donte mënoo ko opposé nga sa borom waaw li nga defoon diw mii maa koy dindi tey yow yàlla loolu nga wax yàlla di tey ma toroxal dinaa ko toroxal ku ko déparé rek na nga xam ni woon nga yàlla nee nga yàlla li nga defoon diw maa koy dindi loolu sew sew la te nit dafa bëgg danaa ko toroxal booy kii malay toroxal déedéet bul toroxal yàlla daa tëral teew ci sëñ tubaa nga bokk ku bokk ci sëñ tubaa lu yàlla def da koy neex loolu taxoon sëñ tubaa di jàngal mag ñi loolu mag ñi lu yàlla def mu neex leen da nga daan gis ku doomam faatu sax mu jóg jëfi ndigal bàyyi ko fa sëñ bi joxe ndigal mu dem moom waaw te doomam ma faatu ñu war koo waajal ak nangam waaye moom si bu ne ba ba mu neexee yàlla la ko neex noonu la ko suñ tubaa yare suñ tubaa noonu la yare woon mag ñi moo taxoon dara diisu doon ci ñoom bu ndigal jotee dañuy jëfe ndigal li yow boo ci deewee da ci biir ndigal li ngay am na kilifa gu faa gu daanu woon ci sooroor bi bi sëñ Fallou Mbacke waxee ah wax mu woon ak sëñ tubaa li bàyyam dana ko xandoor bu demee ci war wàcc nag kii liggéey sëñ bi la juddoo di ci deewee baax na ne waaye damaa waxantewul nag yàlla loolu